asalaamaaleykum euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax euh, di gën a santaat yàlla aussi tamit ci dajale bi nga xamante ne dajale nañ ko fi muy monde làmb tey suñu président di Gris Bordeaux ñu jiital ko daanaka buñ nuyoo Gris Bordeaux rek nuyu nañu mbëri yëpp waaye nag li ma ci njëkk wax mooy ñu ngi sant ñi nga xamante ne ñoo waral lii tey mu ku ci mel ni Iliman Lam ak Aziz Ala Ndiaye euh, ginnaaw yàlla ak lii yëpp nu mu neexee nag ak nu mu mel ak nu mu taaroo ñoom ñoo ci jàpp parce que ci liggéey lañ bokk làmb lañuy ñuy dugg mais aussi tamit di sant suñu papa yi nga xamante ne ñoo tax ñu bëgg làmb ndax làmb fi mu jógee moo sori ancien gloire ku ci mel suñu papa Mbaye Guèye Robert ay Falang ay Dorones ay Boy Bambara ñoo xeex lii ba tey ñoom ñu ñu xeex kon ñun bu ñu xeexul rek du ñooy góor ndax mbër mbër moo gore mbër mooy jàmbar mbër mbër kenn mënu ko parce que ñun dañuy signé ko di jaayante di dem ci diibu di dem ci montagne yi di dem ci musculation yi di dóorante ay campagne soxlawuñu alalu jàmm suñu doole lañ moom lañu sàmm ba saa su rek lii am léegi nag yàlla dogal na coronavirus bi yàgg na lool lool lool lool parce que tey xamuñu kañ la fay wax monsieur le président de la république de Macky Sall moom lay wax na wàcc ci terrain bi xam lu xew ci bi ndax am na solo ndax bañ la jiitalee am na loo bëri mënoo koo xam mais boo wàccee ci terrain bi di nga xam lépp di nga gisal lépp réew mi fu mu toll ndeyoo sonn nañu jeunes yi sonn nañu bien vrai nañu ah ñafe nañ suñu ba àgg fa ñu àgg te dafa may xale yoo xam ne dañoo topp suñu ginnaaw bëgg ñu yaakaar ñu te bu ñu bëggee làmb aussi tamit ñoom ñoo tax ñoom ñoo tax kon nag rafet na. Euh, mesure barrière yi mën nañ koo respecté. dañ ko mos a respecté. ko mos a respecté. boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaan li ci def suñu. képp laay kattan. kon nag loolu rek mbër te mënu ko fay ndax tey boo bëccee bu woote woon mbuur mbuur day fees sel Gris Bordeaux noonu Balla noonu kon nag li ñuy ñaan monsieur le président de la République du Sénégal mu tijjal ñu suñu stade. ñu bëri tàllal ñu suñu loxo kenn pour ñu ñaan parce que suñu am rek suñu bopp ñu ko liggéeyal parce que ñun la ñu ñemee ñeme nañ ko mais xale yi xale yi lu jar a sóoraale la jeunesse bi lu jar a la parce que ëllëg njëriñu réew mi ñu ci ñoom làmb nag nekk facteur développement boo xamante ne saa ah. président leen daal wax ci jarum yu bëri jarum yu nit làmb soxla nañu mu ubbi ñu nekk suñu activité daal di liggéey parce que moom lañu am moom lañu yaakaar képp ku fi mës a mu nga nekk ci état dafa respecté làmb jox cër làmb làmb neex amoon am fu mu toll mais léegi làmb moo ngi am tànk dellu ginnaaw te loolu président xippil say bët bu baax te xam ne làmb am nañ ci yow yaakaar te yaakaar boobu boobu mu tas yow danoo bëgg ne monsieur le président de la République Macky Sall na làmb loo xamante ne kenn mësu koo defal dëgg la esat am na mais aussi tamit boo ñu boo ñu boo ñu ubbilee bàyyi ñu noonu rek bàyyi ñu noonu day metti monsieur le président kon gars yi mën nga jot tey ñoo doon jërëjëf jërëjëf Balla